salaamaaleykum mbokk yeeg xaritu internet yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di leen jaajëfal bu baax a baax di am mbégte ak contentement nag niñ koy defee saa su nekk rek bu xew amee ci réew mi jox leen li nga xam ne moom mooy bi ba noppi topp ko ba xam fan la mbir mi mujjee ku nekk nag gis na jamono ji ñu génn xew-xew yi nga xam ne amoon na fii ci euh, Sénégal rawatina ci mbedd ndakaaru yi li ko waraloon nag du dara lu dul procès bi nga xam ne moom moo amoon jëm ci kaw kii di Barthélémy Diaz indi woon ay jafe-jafe yu metti lool ba sax ñi nga xam ne ñoom ñooy ay ñoñam ku ci mel ni Ousmane Sonko Khalifa Sall ak Malick gàkku toppoon ci ginnaawam doon ko dooleel tax na rek euh, ci kaw loolu la ñu euh, bëggoon a def benn marche boo xamee ni tey jii ci mercredi bi lañ ko bëggoon a woote ñu ñuy xamal léegi rek ne ki nga xam ne moom mooy Barthélemy Diaz nag génnoon na doon dem foofu ca Petersen moo xam nag marche baa waraloon muy dem ca Petersen wala bokk ci ay yittey boppam la doon dox ba tax na rek polisu jëppal teg na ko loxo ci jamono jii ñuy wax yéen waaye nag ba tey rek kenn xamagul exactement lan moo waral polisu jëppal teg ko loxo waaye nag lépp loo xam ne rek euh, am na ci incha allahu rabbi dañ leen ko indil euh, fii ci euh, Feeling Dakar waaye nag ñu jàppagum ne rek li nga xamee ni moom mooy information bi mooy kii di Barthélémy Diaz génn na di dem foofu ca Petersen police jëppal teg na ko loxo actuellement ni ñuy waxee yéen Barthélémy mu ngi ci loxo yoon mbokk yi xaritu internet yi jërë ngeen jëf. del déglu del xool. information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar di nga am